aousbillahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa maolana mohammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wasalam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñaa ngi leen di nuyu yéen ñiy seetaan seen site internet bi di 24 point act di ko seetaan fu nekk ci àdduna bi di site bu am solo boo xam ne liggéey bi mi def ci dëkk bi ak ci réew mi ni ñëpp a ngi koy rafetlu di nuyu Thierno ak mboolem personnel bi ginnaaw loolu yi di siyaar Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifa général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ko wér ak mboolem njabootuk Serigne Touba yëpp ak mboolem mbokki jullit yi ak taalibe naka noonu di siyaar Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Mouhamadoul Fadal mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Cheikh Mouhamadoul Fadal gi di ko ñaanal moom it suñu borom dafa ko kattan ak it la ñuy siyaare Cheikh Mouhamadoul Moustapha moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fadilou mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Cheikh Mouhamadou amin ca moom ñu war a def ci moom ay témoignage yu gàtt ndax ku ne xam na ne bis na ko tey di 30 juin 2010 moom la fi jóge woon ba tey jii di 30 juin 2020 di fukki at Cheikh Mouhamadou Lamine nag wax ci moom du yomb ci minute yiñ ñu ko bëgg tënk waaye dañuy tënk ci moom ndax ku ne mën naa wax ci moom Cheikh Amadou Lamine Baara mi ngi gane àdduna ci 1920 jëm 21 am ñu ne 21 waaye juróom di Cheikh Mouhamadul Fadal moom Cheikhul Khadim ku xam na ko ak soxna Awa Bousso moom Serigne buso bi waaye juróom bu jigéen it di soxna Mamadou Lamine di soxna maam Xari Sall mu gane àdduna fii ci tuuba sëriñ Fadilu di waajuram dippe ko rakkam Cheikh Mahamadou Lamine Baara moom xaadim rasul bi mate dal jàng sëriñ bi jaral ko jaaral ko fi mu ko war a jaarale jàngal ko alquran ba mu sori jox ko rakkam jooju mu ko tudde woon Cheikh Mahamadul Amin mu jàng fa alquran jàng fa xam-xam ba géeju ci fànn yu bëree bari gëstuwaat it ba ku ne xam na ne Cheikh Amadou Lamine daraan làkk ci façon làkk yu bëree bari di français di anglais di doonoon ko moderne ginnaaw bu mu defee tarbiyaam ba noppi ci Cheikh Amadou Lamine ba ginnaaw bi ku ne xam na ne Cheikh Amadou Lamine Baara daf fi teel a jóge ba mu fi jógee nag la dellu siwaat ci wetu waajuram Cheikh Mouhamadou Fadal di fi mottali ab liggéeyam ku xam Cheikh Mouhamadou Lamine xam ko ci ay jikko yu rafet ak bëgg Cheikh Mouhamadou Fadal lool jeex tàkk ci Cheikh Amadou Fadal manis wax ne ginnaaw yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa lu mu am rek bëgg Cheikh Amadou Fadal moo may ci bëgg Cheikh Amadou Fadal mooy bëgg sëñ Tuubaa ndax sëriñ Fallu moo ne woon maay sëriñ Tuubaa ci wet yëpp boo ko nattee ci wetu mbakke gi ci sëriñ bi la wetu Mbusoobe it lépp la ci sëriñ bi kon mu nekk ci wetu Cheikh Amadou Fadal ànd ak moom ci liggéey bi ci lépp lu mu mën a doon ci taalibe gi ci bëgg Cheikh Amadou gi ak saxoo ko noonu it la liggéey la mbooleem njabootu sëñ Tuubaa ji bokk na ci sëriñ Saaliw diggante seen diggante ku ne xam na ne sëñ Fàdilu daana ko booleeg moom mu yoral ko oto di ko dawalal ne ko noonu it Cheikh Abdou Lahad ku ne xam na ne Cheikh Abdou Lahad moo ko woolu woon ba mu ñëw mu boole ko ak Cheikh Abdoul Khadir ne dama ko bëgg yóbbu penku ca ñeewantu naa ko lool waaye boo ko yóbboo ba mu dem de ba ñëwaat ci jàmm faggul naa la dinaa la ci faggul lépp sa mbirum àdduna ak àllaaxira kon nag gis na ne Cheikh Abdoul Khadir ni ko Cheikh Amadou Lamine ne ko woon dana di ko liggéeyal ajjuma yi ba defi Cheikh Abdoul Khadir jógee moo koy jëli këram di ko delloo bu jullee ba noppi mu delloowaat ko këram ba nga xam ne xaddu damm ci moom ca loolu ndigal la loo xam ni ndigal lu bàyyi ko ci njabootu Sëriñ Tuubaa yi la Sëriñ Saaliwu génn nañ ne dawalal na ko lu jiitu muy nekk xalif bi Sëriñ Saaliwu nekkee xalifu Sëriñ Tuubaa it Cheikh Amadou Lamine ku nekk gis na liggéey yi nga xam ne Cheikh Sëriñ Saaliwu daana ko sant njabootu Sëriñ Fàllilu ci xel koom taxawaay am solo lañ ko daan liggéey di ko def ba def ko nu kawe su njort naka noonu it noonu la doon jaxasoo ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal nekk ay sëti sëñ Touba ci ñëpp digganteem ak sëñ Maodo Lamine sëñ Maodo Moussa Fadilu nga xam ne moo njëkk nekk xalifa sëñ ba ni yàlla defee sëñ Maodo Lamine ñëw nekk xalifa sëriñ Fadilu ci atum 99 jàpp 2000 nga xam ne kon nekk na moom suñ borom da ko jagleel nekk na fukki at wala juróom-ñeenti juróom-ñaar juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at daal di nekk xalifa Seexul Xadim bi mu nekkee ci bopp njabootu sëriñ Fàddu yi it daal dajale mbooleem njabootu sëriñ Fàddu yëpp ay rakkam yëpp it déggal ko mu uuf leen ngir yërmande ga ak lewet ga ak jikko ju rafet def ay réalisation yu am solo ci yeesalaat kër sëriñ Fàddu yi ak yu mën a doon dajale taalibe yi dundal màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne moom la fi Cheikh Mouhamadul Moustapha bàyyi woon mu gën ko yobbu ba bi fépp fu ñu tuddee màggal ci yoonu murit bu ñu nee màggal Tuubaa màggal Kazu Rajab lañ ciy teg te loolu bokk na ci liggéey bu rafet ko ci Cheikh Amadou Lamine Bara def ginnaaw loolu bi nga xamee ne ci décembre 2007 Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu jóge na fi Cheikh Amadou Lamine nekk xalif général des Mourides bi fi Serigne Saliou jógee taalibe seeni xel ak seeni xol sangeemoon na ñu jàq lool jaxle lool ndax ki mujj woon ci doomi Serigne Touba dem na ci xamuñ li ñëw lu mu doon. ndeke boobu xamuñ ne Serigne tubaa moom fàggu na Cheikh Mamadou Lamine ngir mu mën a ñëw mën a xettil taalibe bi bi bi bi bi bi bi bi mu ñëwee rek ba mbokk yëpp ci genn guddi tawfeex gu suñ borom defal ci genn guddi daan yoonu murid yëpp daje nañ ci loxoom ndax ak woyofam ak lépp waaye xoolal discours bu am solo bi mu njëkk a def ci kër Serigne Touba bi dajee mbooleem njaboot gi ñi nga xam ne ñoo bokkal Serigne Touba yëpp ba ak Cheikh si ak ñi nga xam ne ñooy bànqaas ci yoon yëpp. discours bu am solo boobu mu def cag woyof ga ak ñeme dëgg ga mooy leen yéen ñi fi toog di samay rek ñu bokk mbir mi ñi moomoon kat dem nañ mooy ñoom Serigne Saliou ak doomi Serigne Touba ñoom moomoon ndax seen baay moo defaroon li ci des nag ñun ñoo ko bokk nim mën a nekk ci man mii mën naa xëy suba di jaar noonu ba àgg ci gën a ndaw ci kon ñun ñëpp ñoo ci am wàccuwaay kon nañ maasandoo ànd doxal ko loolu ñëpp wuy si ko ci koo xam ne loolu discours boobu bokk na ci li def li gën a ràbbalewaat yoonu murit wan na nag li fi nekk ci yoonu murit taalibe yi rek ñoo ko def delloowaat nit ñi ci taalibe yi ñu xam ne Serigne Touba bi mu ñëwee di liggéeyal suñu borom suñu borom da ko boole ak ay taalibe lépp lu mu soxla ci wàllu saayir taalibe yi def ko naka noonu lay demee ba mu ñëw ne la nag li fi nekk ci yoon wi yëpp lu fi am taalibe ko def kon ñu bàyyi xel taalibe yi taalibe yi seen xel gën daal kon bi mu ñëwee fédéré na njaboot gi yëpp. fédéré seex yi fédéré taalibe yi ànd nag ngir liggéey ku ne xam na ne diir bu mu def gàtt na lool waaye jëf ju réy ji mu def ci yoonu murit ñëw engage ay sànce yoo xam ne ku ne xam ne sànce ci ci ci infrastructure ci wàllu tëli ak canalisation lu jafe la waaye Cheikh Amadou Lamine xol yëpp jubu ko mu mel ne xéewal yi dafa gën a baawaan am mag ñu fekk woon jamono Serigne Fallou sax mel ne dañoo wax ne jamonoy Serigne Fadilou dafa dellusiwaat mu engagé liggéeyaat jumaa ji gis ngeen ni mu ci yeesal defaraat miir bi génne tali yi yokk assainissement bi defar fi ay euh, pavage yoo xam ni moo nekk ci wër jumaa ji yëpp ku ñëw ci jumaa ji danga gis defar tali yi nga xam ne mooy penc yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa jëkkoon a sanc muy daarul xudóos daarul naar muy daarul rahman ñu koy wax ka suñu bu daarul minnam ak guy mbind daal di gën a yàkkali autoroute bi nga xam ne moo jëmoon euh, diggante Mbàkke ak Touba mottali it sànc yi nga xam ne moo gën a yokk tali bi deux yi génn ba dem ba Touba Awal ba jëm yoonu Mbàkke yoonu yoonu ubbi daal boo dem xàll yi nga xam ne moom la euh, Touba amoon yokk yit ci ay forage ci ndox yokk ci leneen lu bëree bari waaye liggéey ci njaboot gi liggéey boo xam ne nii ak woyofte goo xam ne nii ak jikko ju rafet Cheikh Amadou Lamine boo ñëwee ci moom bëggul kenn ku jaaxle ginnaaw bi mu liggéey ci dëkk bi defal canalisation yi yëpp liggéey bu am solo boo xam ni ku ñëw ci dëkk bi danga xam ne kat Cheikh Amadou Lamine soppi na xar kanamu Touba ngir sof liggéey bu Sëñ yu bay woon kon loolu bokk na ci ay réalisation waaye ay jikkoom yu mu làmboo woon jikko yu rafet yoo xam ne nii bëggul kenn mer wax nañ ne bi mu fi jógee lu ëpp ay téeméeri téeméeri ci ay leetar yoo xam ne nii adressé na ko ci ndawi gouvernement bi mu fi fekkaloon waaye gisuñ ci ñoom benn leetar boo xam ne nii soxlaam la ciy wax leetar yëpp ay intervention la ciy def yoo xam ne nii ay mbokk yu amoon ay jafe-jafe wala ay mbokk yu seen mbir tagoon wala yu mel noonu kon kooku jikko ju rafet moom la moom moom moom la ko yàlla defaloon ba kare mi axlaax loolu da ko doon ci waajuram Cheikh Modou Fadel ndax bëgg bëggoon sëñ Fadil ba bu tëddee sëñ Fallou rek nga gis ronqañ yi tàmbale wadd mu tàmbale tur xewal ak woyof goo xam ne mbokk yëpp bëggoon nañ ko waaye nag njariñ lu njariñ mbokk yëpp nag wax dëgg yàlla ci diggante bi fi nekk nekk seen Tuubaa mbokk yëpp ak taalibe yëpp ak seex seek ak mboolem ab jullit sax laay wax daal di gën a ubbi relation bi nga xam ne moom la Tuubaa amoon ak yeneen tarixa yi tàmbali di yónnee ci ñoom ay teraanga yi fi yi ko gën a ful ba ñoom ñëpp gis nga màggalu Tuubaa ni mu ko gën a laa yaatale gën a dëgër raw du yaayin daal di fal commission boo xam ne nii mooy saytu màggalu Tuubaa commission boo xam ni daal di commencé di ubbi ay ay conférence yoo xam ne dañ koy génn ci bitim réew jënd ay thématique def ay colloque def ay silil ngir loolu lépp ñi nga xam ne nekkuñ ci dëkk bi nekkuñ ci réew mi ngir gën a bëgg sëñ Tuubaa loolu lépp ci ayuk Cheikh Amadou Lamine la mu dénkoon ko seex Cheikh Amadou Bassir moom Cheikh Abdoul Khadir def ko porte problème ñu formé commission boo xam ni mboolem këruk Cheikh ak kër sëriñ gu nekk ci yoonu murit yaa nga ca ak mboolem taalibe yi nga xam ne ay professeur lañ ay ay spécialiste ci domaine yi mu a doon ñoom ñëpp ña nga ca ku ne xam na ne xoolal euh, étude bu am solo boobu nga xam ne rédacteur en chef bu université bambay moo ko defoon ci impact économique bi nga xam ne màggal am na ko ci Touba. nga xam ne loolu bu ñu ko defutoon ñu bëri dañoo jàppoon ne màggal ak yàq la waaye bi mu defee act bi ba mu génn mboolem ñuy ci àdduna bépp xam nañ ne màggal Touba li muy jural yoonu murid ca loolu liggéeyu Cheikh Amadou Lamine la kon daal Cheikh Amadou Lamine ginnaaw loolu liggéey bu rafet bi mu fi liggéey ci jëflante ak mbokk yëpp nag fonkoon nag mbokki mbusoo yëpp raw mbokk yëpp la fonkoon waaye rawatina mbokki Bousso bi ndax xam na ne Bousso bi ñooy njaboot ñooy ñooy deret Cheikh Amadou Fadal mu jox leen cër di wax ci ñoom ay wax yu rëy rëy ay seede yu rëy rëy wax da yàlla kon moo tax mbokk yëpp naw la woon ko mbokk yëpp yit am cofeel ci moom mbokk yëpp yit naw ko ngir jikkoom ngir woyofam ngir liggéey lu mu liggéey Sëriñ Tuubaa ba jóge fi ci trente 30 juin 2010 boobaak léegi ren di fukkeelu atam kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom mu dolli ko leer ca dolli ko ay maqaama yu kawe ci kanamu waajuram yooyu si Ahmadul Fadal ak maamam ya maamam tedd si Ahmadou si xam si ba Bamba Xaadim Rasul xam naa ne bis ba mu fi jógee le 30 bam ba mu dajeeg ñoom rusut ndax li matoon a jëf lépp jëf na ko li mat a def yëpp def na ko taxawu na njaboot gi ci kamtulaay kàttanam jëflanteeg njaboot gi kon ñi ngi koy ñaanal suñ borom mu njaboot gi mu fi bàyyi suñ borom gën leen a teg loxo moom Cheikh Amadou Moustapha moom it ku ne xam na ko ci ak yéwén ak ak ak yiw ak bëgg mbokk ak mboolem njaboot yëpp sëñ Galas Kaltoom ak mboolem ñi ci des ñëpp buñ ci limee dañu juum ak mboolem sët yi nga xam ne ñooy taxaw liggéeyu Cheikh Amadou Lamine Ba nga xam ne ren jii rek ngir bëgg mbokk ak xeeñcu mbokk gi xew-xew yi moo tax ñu fomm màggalu Cheikh Amadou Lamine waaye màggalu Cheikh Amadou Lamine gi ñu doon def dañ ko dara jaale woon Serigne Thierno Bousso mi nga xam ne mooy suñu waajur nekkoon xalifa sëñ Bousso bi ngir xam Cheikh Amadou Lamine fi mu tegoon askanu Bousso bi fu mu leen tegoon kon daal ñu ngi e, xëy na mënu si ko waxtaan ci ay minutes yu bëree bëri ci ci ay waxtu sax waxuma ak ay minutes waaye ñu ngi sant ñëpp di jéggulu ci kaddu yi xëy na li ciy dëng lu nekk suñ ñàkk xamu néew xam-xam la ak e, ñàkk leeru làmmiñ waaye liñ ci juboon rek mooy def ñoo ngi jéggulu di sant bu baax nag waa 24 euh, point actu di site boo xam ne nii wax dëgg yàlla ñun dañ koy siifur di seetaan lu bari seen directive yu bëree bari ak vidéo yu bëree bari dañu am ci lien yi di ko seetaan waaye liggéey yéen ngi gën a yokk liggéey bi ci ànd nag ak professionnel kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen encourage di ñaan suñu borom defal leen ba dem ba nekk ay télévision ak yu bëree bëri fi ngeen bëgg ma àgg fa ñu ngi nuyu Thierno di ci njaboot ci kër gi ñu duppee ko Serigne Thierno ak mboolem personnel bi ci nekk yëpp di leen sant leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom yokku leen wasalaamaaleykum wa